maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ma indi rek benn leeral te boobu moom defe naa leeral bu yomb lay doon waa kër bu Kunta Njaasaan ñoom ñooy indi leeral ne nervi boobu sant Kunta bokkul ci ñoom pour ngeen dégg bu baax a baax a baax nee nañu nervi bi ngeen di dégg ñuy wër naan diw kunta diw kunta diw kunta bokkul ci waa kër bu kunta Ndiassane parce que ñu bari ñoo leen di interpeller ne wala waa ji kunta la sant kunta la sant donc ndax bu kunta Ndiassane ndax waa Ndiassane la déedéet bokkul encore ci waa kër bu kunta Ndiassane il faut ngeen xam loolu voilà waa ji ngeen dégg ñuy wax waxu kunta ça n'a rien à ak waa kër bu kunta Ndiassane bokkul Ndiassane bokkul ci waa kër bu kunta Ndiassane pour ngeen xam donc kunta kunta yi seen kunta kunta la ñoom mais ça n'a rien à ak waa kër bu kunta Ndiassane donc loolu lañ doon indi pour leeral pour ngeen xam loolu nag comme ni ma leen ko waxee duma ci attardé wu lu bari ndax comme ki ñu gis ñu jox ko fetal police moo ko jox fetal donc police ñoom xam nañu ko police bu ñu defee seen liggéey xam nañu li ñu war a def ñoom te bu fekkee ñoom police bu dëggu lañu ñoom dinañu def li nga xam ne moom moo leen wax dafa am loo xam ne nag dama leen ko bëgg baaxee tuuti sénégalais yi ngeen yokk ko ci xam-xam te ngeen def attention pour seeni ay démenti ak seeni ay caaxaan c'est les policiers et les gendarmes eux-mêmes ñoo may woo am lu leen naqari trop ñu ne ma tunkara gis nañu ne ñu ngi yàq suñu der en tant que police ñu ngi yàqat suñu der en tant que gendarme policiers yu digne yi ñoo may jox information yi c'est les policier dignes qui me donne ces informations ñu ne ay homme politique u Macky Sall ñooy indi nervi yi di leen ko indil di ko dugal ci seen ay pick di leen jox ay ngànnaay ñoom ñu bari ñoom ci seen police yi seen njiit yi les commandants au courant wax nañ leen ñu bari ci ñoom le DG de la police vous savez que c'est un nervi vous savez que aujourd'hui maanaam les commissaires comme commissaire Bara Sankaré c'est de c'est un nervi comme yeneen commissaire bari nañ ci police bi commissaire yu bari ci police bi comme Masserigne Faye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bari nañu c'est des nervis eux-mêmes déjà parce que état la ñuy liggéeyal Marème Faye Sall jox na leen des maisons clés en mais ci Almadi 2 waroon nañ leen ko fi temps yële passé donc ñoom ci seen bopp ay nervi lañu am na aussi ay nervi ci biir biit mooy ay policiers nervi des commandants donc ñoom ñooy cautionné ay nervi di dugg ci oto police yi di ànd ak policiers yi di def liggéey bu ñaaw bi donc ñun xam nañu kii def lu ñaaw mais problème bi ñu am mooy dinaa leen wax tey loo xam ne macha allah sénégalais yu bari nag xam ngeen ko sénégalais yu bari xam ngeen ko gis ngeen yàlla américain dafa ne God works in mysterious ways déglu leen encore li may wax nii bu baax américain dafa ne God works in mysterious ways maanaam yàlla ci kéemaan kéemaan wa yàlla dafa bari kéemaan lañ leen wax maanaam God works in mysterious ways ay kéemaanu yàlla dafa bari xam ngeen Juan Branco Juan Branco ñu bari ci ñoom xam nañ ko déjà l'État connaît qui est Juan Branco état Macky Sall xam nañu kuy Juan Branco Juan Branco c'est un avocat français boo xam ne nee naa leen gagné na Emmanuel Macron ci procès gagné jabaru Emmanuel Macron ci ci procès gagné état France ci procès ñett yooyu jox naa leen ko déglu leen encore beneen bi ma leen di wax Juan Branco est un doctorat dafa am doctorat en loi dafa am doctorat xam ngeen fan la supporter thèse am maanaam boo amee doctorat xam nga ngay dem supporter sa thèse xam ngeen fan la supporter thèse am cour international maanaam Juan Branco bi mu amee diplôme am cour pénal international la dem pour supporter thèse am maanaam tey xam ngeen yéen xale yu bari yi jàng xam ngeen li may wax boo bëggoon def stage nga dem présidence def stage wala nga dem secrétariat bi def stage wala nga dem fële donc waan Branco cour pénal international la supporter thèse xam nañ ko bu baax a baax a baax état Sénégal xam na ko il a un dossier tellement solide à la cour pénale international boo jëloon asamaan si daaneel ko ci kaw dossier bi sax du toj moo tax ñu leen di ne képp ku am firnde jël ko nga yónnee ñu ko ñu jox ko waan Branco wala nga yónnee ko waan Branco directement l'état du Sénégal a un grand problème fi mu ne nii ak ay nervi nervi état Sénégal dañu am problème parce que problème bi gën a mag ci problème bi ñu am mooy Juan Branco c'est le problème le plus grand Macky Sall tey li ko gën a sonal ci àdduna bi ginnaaw yàlla Juan Branco la ak ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy ñun ñooy euh, activistes yi nekk bitim réew parce que ñi nekk Sénégal moom tënk na leen nee na dootuñu wax ana mais ana ana ana ñoom Diop Taïf ana ñoom suñu yeneen xarit yi ñoom Abdou Karim Gueye ñoom Cheikh Omar Diagne ana ana ñu ana ñu ana Cheikh Baara Ndiaye ba barki dem Cheikh Baara Ndiaye ana ñu Macky Sall nee na kenn dootul wax ci senegal léegi nag leneen li ko gën a sonal mooy nee na bitim réew ku mel ni Ousmane Tounkara ñoom Akhenaton ñoom Mola Morgan ñoom Kayz Fof ñoom Jiji mu ne ñooñu il faut mu fexe ñooñu tamit dootuñu wax. mais yàlla wa waxu wolof yàlla du tëj bunt di tëj palanteer yàlla saa bu tëjee bunt ba da lay bàyyil palanteer bi nga tëb ci nga jaar fa problème boobu moo dal Macky Sall léegi nag ñoñoom ndes ndeysaan quelques mbokkam yi fi des ñoom soow yee bàyyee kay yi quelques-uns les petits traitre kii rest ici dans la diaspora ndeysaan bi ñu sonnee ñoom fi mu ne nii ñoom ñooy fippu maanaam xam nga picc bu tooy te mënta naaw di fippu rek di patax patax moo leen dese Macky Sall picc bu tooy la il est foutu mes frères et sœurs sénégalais on a gagné ce combat davantage gañe nañu komba bi davantage yàlla ñu la àndal yàlla ñu la àndal gis ngeen le président Ousmane Sonko boo leen xoolee depuis sama tàmbaliwu discours ci moom dama leen daan nit boo jiitalee njiit wóolu ko est-ce que xam ngeen ne président Ousmane Sonko moom moo dem lijjantil boppam Juan Branco kenn lijjantilu ko c'est lui-même moom foofu mu toog ci néegam fi mu toog nii temps yi ngeen ko déggul yëpp il est dans les stratégies les plus avancées au monde bis bu génnee Macky Sall daanu quand il sort Macky Sall va tomber le jour où Ousmane Sonko va sortir Macky Sall va tomber nañu wóolu suñu général Ousmane Sonko nañ ko wóolu nañ ko protéger nag avec notre vie mais nañ ko wóolu nañu wóolu suñu général de boo bi di prononcé wu ci dara bu ko kenn jël di daw ak moom cette nouvelle affaire de Touba ba léegi désespère la c'est des signes de désespoir ay voilà Touba kenn dootu fi wote fële la ñuy wote désespère loolu yépp jaxle la ah ndax élection nga wax wote nga wax te yow nee nga mën ngaa gañe yow nee nga mën nga yor réew mi saa yu la neexee donc jarul ngay éliminer fii ngay éliminer dëkk bi ak éliminer kale jarul ngay jàpp kii jàpp kale jarul ngay tëj kii di tëj kale jarul ngay sos Sénégal man de li ma gisagum ci naa fekk yi sax ñu koy wax ñoom ci seen bopp d'accord nañ ne état Sénégal moo boom doomu aadama yi mais xam nga lan mooy seen justification ñu ne yaay yi jàppuñu seen doom yi dañ leen bàyyi ñu génn donc ku dee yaa perte déglu leen li may wax de état Sénégal dafa ne yaay ju jàppul sa doom buñ ko reyee yow yaay perte mais ñoom weddiwuñu ne ñoom ñoo rey doomu aadama yi est-ce que dégg ngeen li may wax weddiwuñu ko de.